kenn du leen faale xam leen ko balaa ma ay jooy jàpp waa Pastef di dal ci kaw waa réew mi ñu koy duutante ci seen biir waa gëm sa bopp di tontonteeg Pastef te yàggul dara amagul ñetti nawet bi ñu fi àndee ñoom ñëpp di xeex Macky Sall naan na fi jógee jàpp leen ni ak nii ngeen di doxalee xaaja gu fay jógee te bés bu ay pexeem sottee moom Macky Sall ngeen xam ne lépp dëgg la dina leen dëggaate jaar ci seen kaw xëcc troisième mandat bu dikkul mu puus watey local yi puus watey mi wax ji jeex mu dellu ne faax te coow di jib ndax moom moo leen gën a xam ni fii di Sénégal layal fi troisième mandat yomb fi donte am na ñoo xam ni moo ko sëgg ci ndox mi defam ko naan la ñu yemale waaye bés bu ñu leen yóbboo vaar ñu waar ndax li Macky Sall wax fépp ci ne du mës a def troisième mandat bu doon ab paan la ñu ne teeñul ma ngay rembat dëgg la ne opposition xaajoo ci Sénégal du fi gulet waaye fii ñu fi yegg tey musula am ñu bokk genn gaal bu kii joowee jaar fii kii joow jaar fee ñoom ci seen bopp ñoo la gën a xam ni gaal gi du dem fenn waaye ndokkee yàlla ba ñu leen dénkul suñu gaal gii di Sénégal ñu mënula déggoo ci opposition bi amee wu ñu benn ndombol tànk bu ñu jiite woon réew mi ana fan la ñu koy waxee du ma wax la Senghor waxoon Abdoulaye Wade ne bopp bu attanul karaw du mën a attan am réew waaye ñu ne ay opposant lañu te ànde ndakaaru gii rek dem ba jam ñaajo mënuñu ko ndax ay xiiroo ak ŋaayoo ci seen biir ki gis-gisam yam jom ñaajo moo leen tane foofu askan wi lànk leen ba ut ku leen lànk leen bañ leen bu leen féetewoo tàccu yi saaga yi xasta yi sos yi ak xeex bi ubbi leen seen i gët te xam ne ñii naan leen pale lañ leen jëmale ñi ci ëpp ci ñoom waxoon naa leen fii ne leen ñu benn yoon ak ñàngal ñii dañuy mëq te ni mut ñii di mëq tey mbel mbel te la ca kanam raw yi gët wasalaam ba beneen conférence